Free Money Mastercard disponible dans les agences et boutiques Free, mais aussi sur votre application MyFree. Avec sa carte Free Money Mastercard, des Free si ça calpe. Tous les moyens sont bons pour boire du thé Floria. Floria, Floria. Floria. fourneau jambar ak programme NDF Fonds Vert climat pour coopération allemande GIZ Royal Horizon Baobab fil free home téléphone 33 939 71 71 adresse route des hôtels Somone dama ne télé bi ngeen doon xaar tàkk na de Leral TV 100 pour cent xibaar maa la ko wax te nag télé bi fépp la yegg ci Sénégal de décodeur TNT ba nag ñu ngi canal 33. Bravia Hôtel Ouagadougou vous aimerez déposer vos valises chez nous téléphone 00 226 25 32 97 97. Au Royal buuru Ah, les bises! Retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibis.com. Achetez en ligne, nous livrons partout dans le monde. Laïdjara remercie ses partenaires. Modou artiste peintre. M60. Toi et moi, boutique. Bassifa Couture. Ah, mën a nekk fi mooy Cap Sud xoslu feeb ba tedd fii mooy Cap Sud Cap Sud Cap Sud Cap Sud Cap Sud Cap teewal si Cap teewal sama go si Cap bi dëkk neexee ko ñu tee ko jaay brek fii la lépp di Ne manquez surtout pas votre série Impact saison 2 tous les samedis après le JT de 20h sur la TFM et sur Maroudi TV. Et ce n'est pas tout. Arémer Chaba revient pour une saison 2 tous les lundis et jeudis à 21h15 sur la TFM et sur Maroudi TV. Suivez aussi Jara tous les lundis et vendredis après le JT de 20h sur la 2 s TV et sur votre chaîne YouTube Maroudi TV. Ne manquez surtout pas votre série Emprise qui passe tous les jours de lundi au vendredi sur Sunuyef et tous les mercredis et dimanches sur Marodi TV. Marodi, inspiré par vos émotions. Euh, yaa ngi def buzz ci li nga xam ne mooy réseaux sociaux ba ci sa laay sax ñu ngi gis ni euh, nit yu bëri ñu ngi koy reprendre tey lan nga ñu mën a wax ci euh, buzz boobu nga xam ni yaa ngi koy jox population bi. en fait oui avant tout damay nuyu téléspectateurs téléspectateurs yi ñu seetaan. Mhm. man nag defuma ko pour ay affaire de buzz et tout ça quoi je que man engagement askan bi moom moo ñor quoi damay def ak samay principe ak. li may c'est pour comment faire ah, xam nga pour askan pour dimbali askan bi moom moo tax djuk mais pas ay buzz et tout ça quoi c'est des futilités quoi en fait. d'accord dafa am lu lu am solo li nga wax manam da nga soulever ay polémique ni yu bëri ñi ngi naan lay du euh, activiste comédien la loo ñu mën wax aussi ci lolu comme dama doon dama doon duru comédien ni non juste que li askan wi laajte rek laay. non dama yàlla du ko ma jee. xoolal waxu dof yi muy wax nii. non xoolal waxu dof yi muy wax nii. non non ici c'est la. moo tax émission yi warul nekk direct kii kii kii kii kenn waru koo jox émission direct kii dañ ko war a enregistrer rek émission. nekkuma ci yooyu quoi. <laughs> peut-être que li may dox wax nga dëgg wax nga dëgg de. xam nga et tout ça gars yi di la gis di la jàppee nii benn comédien. mais raison de plus loolu tax ñu naan. non mais j'ai des j'ai des principes dama am fu ma jëm. et j'ai des engagements quoi dafa dafa am loo xam ni. dama ci taxaw temb quoi pour doxal ko en fait. tey dafa am benn surprise boo xam ne dama la koy baaxee dama la dama lay indil ay ndaanaan tey muy euh, saf na neex ak ki nga xam ne mooy mbay comédien yooyu nga xam ne macha allah def nañu lu nekk ci réew mi tey ñoom la ñu dalal. ci seen émission nga fas yéene jàkkaarloo waaw waaw tey ma ko ci angale. bii bi simil ay nothing ah! ne ko ay xët ah! xët ah! waaw yes lii ban ni bandi yaay bandi bandi li nga bandi mooy bandi kay eh! ba tey ci seen émission tey laay ñu indil la ñi nga xam ne ñooy def buzz ci ñoom ngeen bokk ñi ngeen def nag tey ñu la doon laaj lan nga ñu mën a wax ci ñaar ñi man ku mel ni Laye Diarra bokk koy invité si plateau Laye Diarra international da nga war a xam ñan ngay invité si plateau bi. parce que man su ma xamoon ni ñii nga fi invité non franchement man du ma ñëw si plateau bi ah. si désolé. Eh, non yow mii far xolal si Sidi Diop. faroo si waali da ngay encaissé rek faroo fenn da ngay jox say ah, ah. man di taxaw si télé yor sa téléphone naan jënd kii di critiqué ñun dem ne faroo bay mbay mbay respecté téléspectateurs yi téléspectateurs yi lii bëgg wax sama dara ah, bu si ay ay ay ay alal bu lewul la ñun nag suñu alal dafa lew mbay nag calme toi waaw kii encaisseur la da nga bàyyi nag bi gis la

pour contribuer à l'environnement de ce pays mu def ko la propriété xam nga xool li nga xam ne ñoo jàngee respecté pas yi respecté gérer comment faire pour développer le pays quoi et c'est ça quoi et je lance un appel aux étudiants aussi et tout ça ñu jàng bay saccage bay le parce que ëllëg tamit aussi réew mi seen loxo lay tegu am solo am na solo ba tey euh, ñu wéyal li nga xam ne mooy waxtaan bi saf na neex euh, tey ñu gis ni am ngeen absence boo xam ni euh, neexul askan bi fan ngeen nekkoon ak lan ngeen doon liggéey benn xëngal laa doon wàcc sax ni fii ak temps yi rek dina génn. ngi génn tudd Macal ma. Eh, waaw Macal ma waaw du fi génn de. du fi génn. lu tax du fi génn je lance un appel à tous de production musicale

naka nga mën a tele? émission télé aduna bép di la seetaan nga def ci émission ba mu jeex te mënoo tudd sa papa Pa jara mëno ma sax remercier ci sa émission ah. mais papa yow yaa ngi siisu de xanaa xamul man damay révolutionner wat affaire yi nan ngay mën télé di wara wax lu amal askan bi njëriñ nga nek fanan ay bay gërëm diw diw sama papa sama yaay man yoy xam nga yooyu daf fi wara a jeex quoi bo télé da nga wara def programme wax lo xamni ni ku la déglu day xamni ni dekk bi moko ñor. kon yow yow do musu tud mais nak boy dama bëgg nga xam ben affaire est-ce que xam nga ni nga mel du yow li tax nit ñu top la du yow man la pa Jara la man jox sama tempérament am leneen lu ma la jox muy secret yego ko lo wax gaay ni gongo bo génnee gaay top la so yaakar ni yow la yaangi nax sa bop parce que occasion yu melni nii yi ko musa am yépp ku ci musa tok ci télé bi tuddu nga say parents ah mais tuddu pa Jara lan mo ci nek tuddu pa jara wala loolu daf lay déranger d'accord accord xamna lan mo xew am ben problème ten ni li lan la. facture courant bi motale ko nga fay ko. te ma tegale ci ben affaire pour nga xam ko tay muy lèr kër gi su fi lampe tàkkatee ci nek da nga cotiser ndox soo ko naanee da nga cotiser so fi lekkee da nga cotiser pour muy lèr am nga sa indépendance totale. ban yalla yàlla soxla mënoo tudd sa papa toog ci télé booy yi toog ci télé bi tudd mbëri sax bu ñu daanee tudd seen papa tudd seen yaay paa jara am nga papa ju nekk présenté jantal paa nga am boo ko tuddee ñëpp yuuxu paa jara nga tudd ñëpp yuuxu daanu ñëpp d'accord nga toog ci tele bi off ma di ma laaj nu ma noo gis sa émission gisoo ma ko ne dara nga foofu émission bon nga def ah kontaan naa de sama xol bi seddu na guy bu ma la gisee démb ci télé bi waaye ñu nga toogaloon ci plateau bi ñëpp la bañ ñooñu dama bokk ñoom plateau wante duma seen morom dépassé naa leen bu yàgg. cat ak làmmiñ bi yoon dama lay wuta sax ay bitéel yu bari nga songu benn du ci am kàkkatar. non wuy ma yaay jéggal ma ko quoi yow keroog yaa gis bitéel boobu nga ma jox xam ma kàkkatar xam ma moo yàq sam programme yëpp affaire yooyu man nee naa la je suis pas mystique. waa toogal. non bàyyi noonu waaye yaay tamit bu dugal ci affaire yooyu quoi wuy ma dama ñëwoon indi la benn portrait ah, Ablaye Wade sama xarit bi gis nga lii nag dama bëgg nga teg ko fii sa néeg heure boo dee bay jël décision wala ngay dugg ci dara nga xalaat ko ba pare doo ko def sa xarit ngi nii yaay waaw sama xarit dee ngi nii nag lépp songum xeer jeex na maa ngi ñëw yirim fara wadde njaag daara wadde njaag yokkum ci songum xeer ganjul ganjul baa

yéen ba ngeen ma xamee si ngeen commencé dégg ay ay mais bu yàgg ba coow li kese ah bien sûr. yow laay yow la nga de. mais koy wax la yow. yow laay yow ba nga feeñee télé ba léegi xamatoo sa de gis naa loolu te dama bëgg nga ba ba am voix ba ñun ñoo tax. xam nga eh xool dama bëgg ngeen yama su ngeen caméra ngénte yi. laay lii du caméra ngénte eh, eh caméra caméra ngénte tegal déjà présent amatuñu contrat ma yéen ak laay jara amatuñu émission yéen ak laay jara quoi et déjà xoolal buy ma et dégagez de chez moi ça va et remblez-moi de chez moi tout ça oui comment ça yéen waroon xam yéen waroon ngeen xam ne seen toroxal a ngi ñëw waaye da ngeen foog ne da ngeen di ànd ak laay muy toroxal nit ñi te du leen wax dara laay da dara safu ko évidemment il fallait s'y attendre vous avez récolté ce que vous avez semé bien sûr mais par exemple moi je suis un international sénégalais j'ai fait la France la Belgique et la Suisse mais j'ai une meilleure culture générale que ce petit con là ne vous le prenez vous avez eu plein votre gueule mais bon il n'y a pas de souci moi je peux vous proposer mes services. Non, merci.

zzzzzz mais xam man leen dong ma jaaxanaa yow sa doom bu ñuy soog a judd xees comme naar mais après quelque temps dañuy ñuul mais ne teint bii nii su ko xale bi maintenir mais ah jar sama doom ji xeesaayam bii saa ma ko tiimee sama xel lay nekk sama góor gi jara damaa bëggoon nga may ma tur bi ma tudde ko sama góor gi bu ko defee dootoo ma deseel dara sama na te mosoo maa deseel dara waaye danga ma ko ciy dolli. loolu nga bëgg may naa la mais naa la xamal dara kontaan naa est-ce que yëg ngeen xale bu bari coow lay nekk eh, ba ca des ku dëgër bopp lay nekk lu mu matt dina dagg parce nit ku nekk. sa turandoo di nga jël ci nyari juróom-ñaari jikko yu iya, <laughs> baax yëpp te xam nga turandoom nu iya, mu mel jikkoom yëpp baax coow demul ba ko ba ca des moom ci boppam yaa ngi bàyyi xel bu baax ban heure la judd heure bi mu judd ku ko judd topp na la iya, gis ci bari na mais ba fa muy mujj moom xam naa ni mbooloo dina ko topp mais ay mbiram du yomb de. lii moom man maa la ko mën a waxante dara do xew. Ah, day ubbeeku góor gaa ubbeeku ah, ñëpp la boot. man daal li nga bëgg defar naa la. sama xol bi seet mais tamit wax naa ko man. te di nga ne waxoon naa la ko. dara ah kontaan naa waaye. ce que xam nga yow. soo kon ak Ablaye di génération man ni dama koo nopp jara sa wax ji rey na de photo bi laay ma ko indi rek ma teg ko nii kon yow da nga jur sa doom te xamuloo ko ba tey loo xam kan mooy laay laay xam na ni bu baax jëmm ji moo jeex ci sa xol bi bëggoo kenn ku dul moom moom rek nga bëgg waaw ci moom lay jaar nag di la di la di la di la nax parce que kii mooy buntam xam na loolu jot na sëkk nag nga xam kan mooy laay bu la bëggee je fii lay jaar mais man régler problème man photo bi yow tamit. photo bi eh, là. ay lan la da ngeen pour nga xam lan la. tu sais je suis aux toilettes tu m'appelles comme ça. sure. mais da ngay dagg li ngay def ñu wuy si ma. yàlla yebbee ko rek noonu jàppee ko noonu di yebbee ko rek. oui pardon non xam nga loolu mu bëgg nga xam ko na nga arrêté sa yi ngay def photo Ablaye Wade yi nga jàpp di ko naxe sa yaay la bëgg nga arrêté ko nga mel ko yor sa xale bu ndaw. faiblesse bi sa yaay am ci Ablaye Wade soo xamoon fu mu jógee di nga arrêté sa yi. oh yow mais photo boobu may sama yaay lan nga si nekkee fii di ay problème comme ça mais xanaa Ablaye Wade du du référence ah et au juste lan nga ma meree laa bëgg a la lan moo xew la nga ma meree. boy man li ma la meree dafa jiit sa juddu laay yow bi nga juddoo ma war laa ngénte problème bu ma am ci laa ko amee du ma nangu nag nga jëlaat ay yeneen problème di ko ci dolli ah yow nga dund man ma dee. arrêtez like. mais mais je sama mais si je suis la moo wax ma. Il dafa mauvais souvenir la Je un quoi gis nga ci def ba fi mu nekk nii maa ngi koy chaque jour mi ngi sama xel bi mënul jug sama xel franchement xam nga. Votre série revient après la pub. Resto, so Ne manquez surtout pas votre série Impact saison 2 tous les samedis après le JT de 20h sur la TFM et sur Maroudi TV. Et ce n'est pas tout. Aremer Chaba revient pour une saison 2 tous les lundis et jeudis à 21h15 sur la TFM et sur Maroudi TV. Suivez aussi Jara tous les lundis et vendredis après le JT de 20h sur la 2 TV et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Ne manquez surtout pas votre série Emprise qui passe tous les jours du lundi au vendredi sur Sunuyef et tous les mercredis et dimanches sur Marodi TV. Marodi, inspiré par vos émotions dinañ ñëw di nous suñu ñu manqué de respect journaliste mais suñu liggéey dafa là. yéen nag bu continuer continuer non non non calme-toi calme-toi. calme-toi. c'est pas le bon moment. yaa ngi dégg laay nu mel nii ñu ñoo tax mu mel Nous mais c'est le risque du métier on ne fait pas pour sommes mais pour la population on doit continuer. ok effectivement nag noonu la demee nag. buñ liggéey ba yegg fii di ko yàq. dañ continuer rek vraiment. Mm. waaleykum salaam. ah Thioli Beuz ah. waaw waaw waaw. Bambe na ngeen def. lépp nice. kontaan naa si li ngeen def. jaajëf maay waay. ça va Contant de Palace. Adımını yine istersen gidip alın. Neyman. Man ci kàttali. waaw mais man dama xamul ndax si kat jinne yi nañuy doxantu heure bi wala lan mais xaaral ma dóor ay tour kursiw rek man sama instant bi moom tey looy def mu koy filmé léegi. non je te dis non xoolal benn sédd. non non. mais damay doog a yeewoo bàyyi ngay def.

booy di la imité di booy defee ay xawma loolu lëppaa lëpp yooyu di ay Spiderman ak ay Batman ak yooyu léegi Mardi Gras lay jaarale booy di solo. ay jaara booy mais Tons xam nga ni man ci yow lay xool. te xoola booy mais man bi may ñëw maa ngi gis waa coow li bës. mais booy yow doo téye sa caméra bi yow te doo dégg looy filmer non ñi dañuy du ma yeewu sax ñëw sama gàll di ma jéem a sonal waa coow li bës xamuñu man.

nanguwuma ci leeral dara quoi ma bëggoon xam suma jour ngénte lan moo ci xewoon. écoute la vie du lépp ngay xam wax ko du lépp ngay wut a xam loolu moom maa ko ñaan baal mu sedd quoi. oui oncle yow américain nga oncle Sam xam nga te américain xam nga nag ah day dox ci yoon quoi te xaw ma ak yow mooy loolu dama bëggoon xool.

bi yaa ko moom pour lan. non je vais expliquer yaa ko général. gérer. Hum. Et Mohamed yow ana sa papa. non sama papa gagné naa bu yàgg. oh non je savais pas hein? oh toutes mes condoléances ah. Sigil Ndigalé. Sigil Sanwale. Hommage à tous les morts hein? leen nank ngeen organiser ko yéen yéen a gën a xam ne laay dafa xew lii nekkul ni ko surtout yow mi nii sa giri kaña bi ni ak sa caméra marché bi nii il faut ngeen régler quoi ñu régler ñu situation bi voilà booy eh, eh li ngay wax d'accord ma si booy laay ak coolu bë seen collaboration sa date pas d'aujourd'hui loolu mooy réalité bi eh eh bàyyi ma yow gën a xam ne laa laay dafa xat laay dafa xat waaw mi ngi nii a jara mënul toog yaa yaa gars seen biif non dara ah. bëgg ma teg pression te man xamal man liberté laay dund ah, man kenn du ma fatt ah. ah. oui bu bàyyi seytaane dugg seen diggante xam nga job bi ngeen tàmbali nii su ngeen ko eggalul xam nga du ngeen atteindre seen objectif te boobaa day nekk un goût inachevé xam nga laa gis ngeen terminé en beauté quoi man loolu laa gis de. mooy fii benn problème amu fi mais man kenn du ma teg fitna. laaj ñu ñoo la tooñ ñu ngi jéggalu. waaw ah, voilà lii moo mën am. jàmm am lii moo mën a am jàmm am. lii la toog leen. seen caméra ngeen bi. Eh, toogal nii toogal nii looy kii nii toogal ah. li xanaa deux la.

Les gars. Yeah. Ça, c'est Jérôme. Ça va Lai. c'est. Ça va, beauté Ça va Tu les connais euh, oui. Si, il nous Comment Agnès Si, ah, il ah, hmm. Mais là, franchement, félicitations. Ah oui. Je te suis beaucoup, on t'apprécie vraiment au Cap-Vert. Cap-Vert <coughs> Mais ils bossent au Cap-Vert Si, franchement. Je suis fière quand je leur dis que Yamayar et que Nyobok Ah oui, merci. Hein. Je sais que tu es un eh ça rakk la yow. bokkuñ daay ak baay de nga may saf dagit. ah oui c'est la meilleure façon de remercier dépend de ce que l'on reçoit. C'est vrai. Et si c'était l'ail national, maintenant c'est l'ail international. Quand est-ce que ça

li ma defoon ci yow depuis nga judd ba toll ni nga toll remboursé ma ko génne lépp nga jox ma ko. après lu ñuy réglement ak yow ñu rek. waaw joxuma la dara c'est un droit parental tu es mon papa tu dois m'éduquer tu dois me tu dois mettre dans de très bonnes conditions ah oui du yoon oui c'est ça ah eh, ay man xoolal moi on va me rebaptiser. dañ eh, may gëntewaat. laay ak ceeb bu lew. doo mesurer say problème looy wax. Eh, dañ may gëntewaat ak ceeb bu lew dañ may gëntewaat la wax. kii wér na est-ce que. pas du tout. kon ba léegi yéen a ngi laaj ndax laay wér na wala wérul. ki par minute lan dafam gi yop dañ may gënté wat lool comme da nga rew da ngay gënté sa bop yow lan nga yor mëno jënd ceeb mëno jënd diwlin da gënté sa bop gënté sa bop demal nga gënté sa bop s'il te plaît calme down hey yo keep your mouth Not be nga écoute problème bi simple la sister xolal dina financer ñu tuddaat ko ngeen wat ko eh sama

wax di est ce xam nga du loolu li ñu wax moy li genn fan la jaar ba genn amna fu mu jaar ba génn loolu la ñu war a lijjanti. welcome to my dark side. Sacré cœur, liberté embastide. ci cap baobab, ci cap karak. come on a mën a nekk fii cap si. ah